di man d' abord euh, d' accord mhm, parce que je pense que l'image du Sénégal nekkul ni euh, ñooñu ñoo ko mën a yàq am na ñoo xamante ne yor nañ ay nationalité ci réew yu nekk di yàq image yu Sénégal am na ñoo xamante ne yor nañ ay papiers yor nañ séjour di yàq image yu Sénégal. Mhm. donc dafa nekk loo xamante ne il faut que nguur gi di communiquer parce que tamit dëkk boo dem am na ay sans papiers am na ay sans papiers yoo xam ñu ngi fii Sénégal. Mhm. jugee jugee partout en Afrique jugee partout en Europe. parce que dafa am loo xamante ne d' abord nañu ba euh, ba président euh, Allemagne est mhm. waxtaanoon bari man Quand wax ni signalé. Sénégalais Allemagne. que euh, fenn m'a que vous message vous wax situation mhm. parce que que ça fait deux ans ñu nous koy ñu koy bëbëtu suuf. ñu ko wax Argentine aussi lañ fa mhm. donc Sénégal partout dañ leen a du ma ne nag nguur vous mooy mooy jox nit ñi leen mais. nañ leen accompagner. vous ñaari Sénégal Espagne. Sori Kawa mi dafa dem négocier avec la maire, pour les une formation, pour mm-hmm. les intégrer, parce que c'est ce que de avons immigration choisi. Donc, c'est donc bon ami, nous sommes victimes de vous, vous venez de nous les 500 000, vous venez de nous dire, vous venez Déjà, le président de la République, dans une campagne, il a fait ans, il a créé 500 000 emplois. Donc, il faut créer 500 000 emplois, après, il a Donc, il faut débauché. Donc, nous, vous il faut nous dire, pour vous venez de nous dire, est-ce que Fès tay euh, ndaw yéré jambar la. mais est-ce que jambar la mais est-ce que tay jox nañ ko les moyens yo xamante dina mën a liggéey. les Sénégalais yi nga xam ñu ngi leen finance est-ce que ñi ngi rembourser il faut que ñu fatlu Ousmane Ngom bam fi nek ministre de l'Intérieur demoon na ci Espagne. en 2006 suma ma mhm. négocier pour ñu indi Sénégalais yi. ñu doon jël gal après si lañ indi bango di leen indi. Mhm. Mhm. ñu joxal ne am na benn somme bu ñu fi avancé ba 19 milliards. si leen créé woon plan plan REVA. plan REVA waaye ana fu mu toll tay gouvernement yi mënul mënul utal li ñuy liggéey

Euh, luñ fi gis ba daw ñoo ko xam image Sénégal lu ko yàq tey bari na ci yoo xam ñi ngi dem bitim di dem naka su loolu ñu ngi yàq image yu Sénégal donc faut ñu jël ko rek bëgg ko teg Sénégal léegi si immigré yi tukki nag wax dëgg yàlla nit moo ko choisir boppam c'est un choix man sax damay parfois damay naan damay compte ñu naan gouvernement dafa ñu war a taxaw daf ñu war a jox xaalis daf ñu war a financer parce que ku tukki yaa choisir

waaw voilà euh, monsieur Lo dama ñëw ci yow yooyu itam doomu réew mi nga. nga yore mm, coalition bu tudd Aljana. Mhm. nga bokk ci coalition benn bokk yaakaar naam te duma sax wax casquette politique bi mais mhm. da nga doon doomu réew mi koo xam te ne bi da nga yàgg tukki. Mhm. yàgg nga dégg tam ñuy wax ay rapatriement nekk guleet Sénégal signé accord bu yàggul am na ay États-Unis daanaka lu mat cent et quelques indi na leen fii ñu ngi doon jàmbat ak a jooy tey bi nga déggee lii nga dégg Sori Kaba li mu wax jàngat boo ci am en tant que quelqu'un koo xam ne dafa jege président Macky baaw ehm, sëñ Modou mi ngi lay ñu ngi lay ziare bu baax leen nuyu di nuyu bu baax Seydina fi mu daanee rek lay ñëw parce que euh, immigration nekk na lu doy waar